be Serigne Saliou Thioune ak soxna Aïda Diallo fii ci Janatu ñi ngi talaata ginnaaw boobee nag ba léegi ñaari kan yooyu duñu laalante benn yoon ci diwaan boobe lu ñu mel moo tax Youssou Mboup jiite ay taalibe yu Serigne Saliou Thioune dina xar lu ñu mel ginnaaw bi ñu xëyee tey ñu teg ay loxo ñenn ci ñoom. parce que ñu jàllee ba léegi amatuñu jàmm ñun coow lu mujj lii gone ak gone ndax daaray gone yi lañ ko tuddee daaray Lamine Mbaye ñoo doon def daara dend ak fa ñuy defee daara waa kër ñoom ñi kooku moo ñëw fekk xale yi taxaw di leen saagan rek dans un temps xale yi noppi mais bi mu ko dollee ñu leen yéen doo leen ay góor sax am ci ku riposté coow am fa ñu xeex blessé yi ñaar lañu ci ñi ma xam kenn ki ci bopp la gaañu kenn ki ci loxo ngir bañ nag jafe-jafe bi di wëy ci diwaan boobee moo tax ñu ngi sàkku ci kilifa dëkk bi mu daal di ci addu balaa mbir mi di ëppi loxo yi ñaan xam nañ Touba ñu fi kilifa yi. wala ñu dimbali ñu ñu dimbali ñu dañuy ñaan dimbal ñaxtuwuñu joytuwuñu te billaahi duñu xeex duñu xuloo ndax ko boo xeexee blessé yu ëpp ñuy dem fii li fi xam yëpp am na ci loo xam ne xam ci rajo kon ñun ñoo ngi ñaan kilifa yi. nañu gaaw ñëw dimbali ñu lii ñu safara ginnaaw jàmmarloo yooyu amoon ci seen diggante mu am ay blessé ak ñoo xam ne ci camp Serigne Saliou Thioune nañu bokk ñu ñu teg loxo jamono ji ba ñu nekk ci commissariat bu Janato waaye nag suñu jokkoo ak kilifa yi yor wàllum yoon ñu ngi xamal ni waa kër Soxna Aïda Diallo dañu bind plainte waaye itam joxe certificat médical loole moo tax mbir mi mujj ci seeni loxo Marema Diop fii ci Touba RF Saliou Thioune ak soxna Aïda Diallo fii ci janatu ni ngi talaata ginnaaw boobee nag ba léegi ñaari camp yooyu duñu laalante benn yoon ci diwaan boobee lu ñu mel moo tax Youssou Mboup jiite ay taalibe yu Serigne Saliou Thioune di naxar lu ñu mel ginnaaw bi ñu xëyee tey ñu teg ay loxo ñenn ci ñoom parce que di jàllee ba léegi amatuñu jàmm ñun coow lu mujj lii gone ak gone ndax daaray gone yi lañ ko tuddee daaray Lamine Mbaye ñoo doon def daara dend ak fa ñuy defee daara waa kër ñoom ñi kooku moo ñëw fekk xale yi taxaw di leen saagan rek dans un premier temps xale yi noppi mais bi mu ko dollee ñu leen yéen doo ay góor sax am ci ku riposté coow am fa ñu xeex blessé ñaar lañu ci ñu ma xam kenn ki ci bopp la gaañu kenn ki ci loxo ngir bañ nag jafe-jafe bi di wëy ci diwaan boobee moo tax ñu ngi sàkku ci kilifa dëkk bi mu daal di ci addu balaa mbir mi di ëppi loxo too ngi ñaan kilifa yi su ma nee kilifa yi xam nañ Tuubaa ñu fi kilifa yi wala ñu dimbali te billaahi duñu xeex duñu xuloo ndax ko ëpp boo xeexee blessé yu ëpp ñuy dem fii li fi xam yëpp am na ci loo xam ne xajul ci rajo kon ñun ñoo ngi ñaan kilifa yi nañu gaaw ñëw dimbali ñu lii ñu saafara. ginnaaw jàmmarloo yooyu amoon ci seen diggante mu am ay blessé ak ñoo xam ne ci camp wu Serigne Saliou Thioune lañu bokk ñu ñu teg loxo jamono ji ba ñu ngi nekk ci commissariat bu Janatu waaye nag suñu jokkoo ak kilifa yi yor wàllum yoon ñu ngi xamal ni waa kër Soxna Aïda jàlloo dañu bind plainte waaye itam joxe certificat médical loolee moo tax mbir mi mujj ci seeni loxo Marema Diop fii ci.